dañoo orienté fii ay étudiants yoo xamante ni depuis deux mille ba léegi. man 2020 léegi mën naa ni deux ans kese lañ fi def deux ans yu légal yi ci des nag ëpp na ko ndax presque def nañ fi quatre ans ci deux ans yooyu noonu jox nañu fi wenn diplôme bu ñuy tuddee DUT ay attestation ba pare sànni ñu noonu daan nañu seen njàng fii la yem te ñun li nga xamante ne loolu la ñu waxante woon ak ñoom li ñu gisoon ci li nga xamante mooy si plateforme bi mooy système LMD bi dañ koy respecté mooy ni nga mën a demee ba sa DUT noonu ngay mën a dem ba sa licence professionnelle am sa master wala sa doctorat bu mu ci mën a doon. léegi nag ñun dañoo am beneen revendique dafa dañoo am beneen xeetu xeex bu ñuy xeex bu wuti ak xeex yañ daan xeex. ci signature moo ñu delloo ci classe yi beneen bi mooy ñi nga xamante ni ay nouveau bachelier lañ di doog a ñëw di doog a commencé. amuñu benn mesure d' boo xam ne teg nañ ko ci seen loxo ndax bu ñu nee la informatique ngay def mu nekk domaine numérique yaakaar naa li gën a jaadu mooy nga jël au le minimum mooy war nañoo am machine boo xam ne moom la ñuy liggéey ak clé USB boo xamante ni dina yombal li nga xamante ni mooy seeni i recherche incha allah jusqu'à nouvel ordre nouvel ordre bi mooy fekk amuñu waxuma ay promesse fekk amuñu lu leer firnde yi wóor ni incha incha allah dinañ ñu accorder ñu bëgg muy système LMD bi benn muy logement yi ñaar muy les mesures d'accompagnement ñett fekk jotuñu ci yooyu euh, yooyu dagaan yi nga xam ne ñoo koy dagaan incha allah du ñu wàccee suñu mot d'ordre bi.